moom moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo ma wërsëg ba gis ma man xaw ma won kan la mais dafa Sidi moo ko waxoon ne am naa benn cible boo xamante ne loo gars yi dafay dem di koy seek moom rek Mamour Diallo ci ñu dugg ci dem maître Sow yor naa benn lii nii li yoo xamante ne maître Sow moo ko bind sa loxo numéro jox ma ko dinaa la ko jox maître Sow yaa maître Sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñu ñoom ñu mon ndax am mais ne comme ça veut dire quoi est-ce que ay nit et tout ça ñoom ñoom wax ne dama retourner wat li nga xamantene duñ ko def say ni déjà loolu noonu c'est affaire boga grave ñoom den dama pour ñu am même. gis nga nak loolu loolu nak gis nga loolu rek loolu nonu rek luñ luñ ci loolu luñ ci mëna a liggéey. après ma démat ce jour ce même jour j'ai j'ai appelé maître mais une semaine après maître xaw ma appelé pour me dire que le gars il est là ma ne ko waa ji ñëw na fi de parce que damaa duggoon cabine ak keneen ma ne ko ñëw na mais def dara dafa ñibbiwaat ma sew. voilà. demaat. après mu mais jour boobu si Mamour Diallo mais moo ñu jox oto ñu dem euh, ànd benn médecin dem seetawoo ci benn médecin médecin bi def lii hmm? tout ça léegi nag gis nga gis nga loolu noonu ah ci pet ah ci man sama diggante ak yow mm-hmm. ay millions la yoo xam ne yow sa compte lay nekk fii loo xam ne dañ koy téye. déjà déjà je par force. par force. par force. parce mm. que nous, avons ñoo tax Nous moo tax ma la maa ngi au fait li ma lay wax ne papa ça xamu ko sama Nous kenn xamu ko si moom. sais. xam naa. parce que confiance bi nga am déjà confiance bi nga am ci man c'est-à-dire li nga wax ak man. li nga wax ak man mëno dama lay confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam la voilà parce que nit il faut que mu am ku nekk ci wetam dimbale ko comprendre nga bu baax. comme ça. jamais dama lay jamais maa yow ba nga dee yow waxuma la dara dama lay téye. ba bien sûr pourquoi pas. pourquoi pas yow man maa lay jox Cheikh Ibrahima Niass déggoo lu ma la wax yow loolu bul sonn. loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la.

lu leer laa loo ne. am na loo xam ne su fekkee ne doo dof da ngay xam lu xew lépp dégg nga waaw mu ngi noonu te li xew lépp xam nañ ko waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ne ay waxu neen la rek comprendre Mm-hmm. ba pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la garde jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko lu ko gën mm-hmm. xam nga lu ma la nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp te mën nañ ko du dëgg uh-huh. ah, dëgg léegi nu ñuy def ci paa boobu ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus ah, ah. au cas où ma danger. d'accord léegi man danaa xool oote su ma

Ils n'ont pas été morts. waaw loolu man. donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table. mais moo tax ma bëgg yow nga ñëw nga toog xam naa ne li ñuy wax nii yëpp ay fen la yaa ngi dégg mais ñoom mhm. bëgguñ nga wax moo tax ñu garde la te suñ xamee ne da ngaa nar a wax yaa ngi dégg. Mm. nuñ lay def mhm. dañ lay bëgg a liquider. dañ lay bëgg a liquider parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow. bis boo waxee mhm. tas àdduna. Mhm. yaa ngi dégg damay toog waaw man parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence presse dafa ne benn kilifa lañ am mu ñu ngi koy déglu man nii lay wax. sama papa na ma loo xamante ne si ko loolu dafa loolu la ma. waaw léegi nag ñoom Me El Hadji Diouf ak ñooñu du mhm. leen aara parce que Me El affaire am mu ngi ciy baax. ba oui ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku si takk képp ku si takk sa affaire mu ngi baax sincèrement. xam na ne moom Me El Hadji Diouf xam na ne lim nekk yëpp ay fen la mu ne xaara léegi may may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi koy jox ñu ngi koy jox xaalis. moo tax mu ne léegi nag nday mbili gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la topp lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox. allo ma ne. Mm. xam nga. xam nga yàlla moom tey su doon wàcce mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk de. lu ah ndax man nekk na complice ak yow toog xam ta noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugal yàlla moom kenn xamut du jeex. loolu mais dire Euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo pexe ko loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la wax loolu araam na wala araamul man muy doomu sëriñ te jàng kay xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar ne àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yowmal qiyaam kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal guddul jeex la xoolal imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci mus teg teggi sa loxo danga ko ci teg te safara si yi ngay gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira sëpp nañ ko ci juróom-ñaat téeméer yoon juróom-ñaat téeméer mooy mooy set déedéet bul tiit arxo baax na nag léegi-léegi nga jang ñu jangal la ci mbir yalla parce que xam nga nit doomu adama day nekk ci aduna te du jang du jang yalla su jàngee yalla nak ñu wax ci yalla dana am lu beuri lo xam dina ci baye xelam mais nak yalla borom mënde la Binta Gari Adja. eh. ah loolu mooy problème hmm. yow mii nday mbili gi nga xam ne yow yaa yow yaa waral coow lu yëpp ñu xam ne coow lu yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards. Hmm. dañ la ko war a jox aji. déjà tey dinaa leen tiital parce que euh, je je retourne vers euh, François Hélène Gueye pour hmm. lui dire que de euh, samedi suba incha allah dañu def live. waaw léegi nag man des révélations. yaa ngi dégg. waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da ngay toog ne leen damaa bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à main yaa ngi dégg mm-hmm. soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay këyit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax dafay nekk mu nekk foofu mais ñoom man xam na xam na xam na xam na xam naa leen ay fenkat la ñoom ñëpp te ñoom ñëpp laa xam ñoom ñu ku nekk tëgg naa ak ñu ak yow. Mm-hmm. ñoom ñëpp laa xam ils n'ont pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko. voilà ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends dinaa photo benn benn list ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. mu ngi noonu. su ma su ma su la ko waxee sa je vois pas mon croire. ñii di ay doomaram moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamuñu lépp lu ñuy def xam naa ko. dama leen bàyyi si biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag tañ xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci table nga ne leen yaa ngi may dégg. terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille. attends attends moi je moi xa euh, ces ces ces ces gens là xaw xaw ma ay nitu lan lañ.